d'accord dama nga ma laaj laaj bi non ma wala ko laaj laaj bi dafa këf mais gars yi nag laaj bi non non non non sëñ Bada dama bëgg tamit ñu teg ko maanaam xam-xam la non mais non euh, du xam-xam xam-xam Ahmed Cissé euh, Ahmed Khalifa Niass mm. niveau xam-xamam. dafa dépassé sénégalais yi. waaw d'accord léegi ba mais li mu wax. waaw mais leer na ma ne Ahmed Ahmed Ahmed Khalifa. Hmm. bu ngeen ko woon laaj ko li tax mu wax loolu. Hmm. dina leen wax loo xamante ne nii di ngeen comprendre lu moo tax mu wax loolu moom waxul loolu pour yeefit na man li ma jàpp. moom waxul loolu pour yeefit na. waaw mais dëgg la dëgg la mais gis nga El Hadj dama bëgg ñu. dama bëgg dama bëgg déjà. Hmm. ñu recadrer waat plateau bi déjà Darmanko moo may wax tous les propos de Ahmed Khalifa ñu ñëw bana ak yow ngeen def analyse yi c'est bien euh, ku nekk wax xalaata mais yow yaa may wax en tout xam nga li may indil gis nga Bamba balaa maa dugg ci propos amee Khalifa Niass gis nga tamit hmm. ñun euh, je dis pas que ne respecté wuñ leen mais gis nga saay bu télé bi tàkkee hmm. des millions de sénégalais hmm. à l'extérieur ñëpp xam nga lan bëgg ci loolu si seen connexion bi nga xam ne dañ ko jënd ak seen xaalis mooy di dégg li nga xam ne am na loo xam ne yàlla kase moo ko xam gis nga ñoom dafa am loo xam ne man bëgguma ñu koy boole ci plateau ndax ñoom génn nañ ci à la seconde. bi nga xam ne dugg nañ ci politique. ok il faut le dire Ahmed Khalifa Niasse dafa yor parti. il veut être un jour président de la république bu ko yàlla may gudd fan parce que ku ko yor loolu ngay rêvé. mais bu gul tey jii ñu koy ñu am problème ak benn xale en tant que kilifa gi mu doon bu ko boolee président bi muy doon wala ministre bi muy doon ñu naan ko carrément dan la kaa war a may pour mu lew la. Ah. parce que tey naturellement à dire ah. ah. man man man risque boobu dama koy nangoo parce que man gëm naa ne am na taalibe boo xam ne boo toogoon ak moom mu wax rek te yàlla tax parce que gis nga àdduna boo ci nekkee bu la àdduna safee nattu la mais bu la yàlla safee ndam la c'est-à-dire ñun mën nañ toog biir kër yi rafetal suñu biir doom mais nag nan respecté tamit téléspectateurs yi ñuy lii mooy dëgg non pour man xam nga xam nga pour man dara nekk la pour man dara nekk parce que fi ma déggee moom la xam nga dafa am loo xam dafa am mm-hmm. problème Adji Sarr ak Ousmane Sonko oui dafa am accusation bu ci am. Hmm. Hmm, hmm. muy viol muy viol. comprendre nga Ousmane wax ni amul xam nga par exemple nit ki lay lew ki nga naan na na ngir mu lew la. boo demee ba naan ngir mu lew la kon yow mu yaa ngi mën ngaa mën naa jàpp ni yow da ngay affirmer li Adji Sarr waxoon. parce que lew ak ñàkk lew fu mu amee c'est parce que yaa ngi jiin ni am na lu ko xew pour man pour man laa wax. sama gis-gisu bopp laa. lew ak ñàkk lew. fu foo ko tuddee. foo ko tuddee. c'est parce que am na yow. loo soupçonné waaw loo soupçonné. waaw wala looy dëggal. waaw comprendre nga. léegi li ma bëgg a wax foofu mooy propos yooyu la warul woon tenir. li tax mu waroon <laughs> tenir mu bañoon a tenir propos yooyu. Mhm. mooy mi ngi sulliwaat loo xamante ni par exemple. ah oui am dafa mel ni indirectement am na ku muy jiit dara. Mhm. est-ce que comprendre man foofu laay waxee. il n'est pas content de Ousmane Sonko. il n'est pas content de Ousmane Sonko il faut savoir aussi que ni. Hmm. Ousmane Sonko ak Ahmed Khalifa ñi dañoo am ay antécédents. mais est-ce que jubluwul jàngale. non dañoo am ay antécédents. ñoom ñaar c'est pas la première fois am nañ fi coow loo xam ne amoon na seen diggante. dëgg la kon daf ci am loo xamante ni nit bu fekkee da nga euh, taxaw amoon ak moom coow démb day nga taxawaat wax indirectement ci man ni ma déggee am na loo koy jën ban ba tey da ngay taxawaat di venger waat te la nga xamante ni moom ngeen seqoon démb mooy coow li amoon seen diggante donc dama lay wax benn affaire man li may wax encore une fois nit bu fekkee nii li may wax ni nit ñaari nit dañ la topp il faut respecter tes taalibe respecter say taalibe mooy am discours yoo xam ne da nga koy tenir mais à chaque fois boo génnee am discours yoo xam ne day créer euh, maanaam coow polémique polémique comprendre ci koo xamante ni tey jii bu ko nit déggee yàq la loo xamante ni ci tuwaay bi te nit il faut respecter tes talibé parce que seen ngëm aussi mm-hmm. envers toi da ko war a respecter parce que li dégg ci yow mën na laa bañ a mais est que talibé tamit pare nañ pour respecter ñu pour kilifa diine boo xam nga dugg ci tamit na ñun ci politique la ñuy wax non Sénégal dafa war a egg foofu allo Fama allo salaamaaleykum maa ngi lay siyaar Bamba maa ngi ñu ngi delloo siyaar baax a baax. di nuyu El Hadj Mbaye di nuyu Darmanko di nuyu Serigne Bada. ñu ngi lay fay Fama. di joxe sama contribution ci ñaari thèmes yi ngeen génn. Mm-hmm. affaire sëñ mm-hmm. yow rek la ñuy déglu. diggante la ak doom. Mm. ndax temps campagne bi dañ doon naan pire mooy Sonko pire mooy Jomaay Jomaay ñooy pire. parce que ñoom fu ñu daan daje dañ daan wane loo xam ne lu kii la waaye man su ma sañoon. Hmm. sa doom bu la tooñee da nga koy woo téléphone. nga wax ak moom. ok affaire yi nag Ahmed Khalifa Niass. Hmm, hmm. parce que dama xalaat ne boo nekkee ci guddik Seydina Mohamed. nga woo mbooloo mu toll noonu war ngaa débattre ci Seydina Mohamed wala nga yedd xale yi wala nga wax leen lu leen jariñ wala nga yedd ndaw ñi. parce que gis nga ba mu yëkkatee propos yi ñëpp dañ ne xaaj di ko xool mu leen tàccu leen. kenn tàcc mu ne du ngeen tàccu nga war a xam ne dafa nekk loo xam ne kilifa du ko def kilifa da ngay wane ne kilifa nga yu bari waroo koo tenir parce que moom dafa war a fàtte ne ci problème mu amee Adji am na tur yuñ cité woon moom tërëm mi ngi woon ci biir. su demoon tey bay dëggal naan war na koo leew suñ ko ko mayee war na koo nangam kon moom xam na ci dara. parce que limoon nañ ko ci ñi daan yollee ko di seet Adji Sarr ba këram. mais guddik Seydina Mohamed. Hmm. man su sañoon mu débattre ci leneen lu dul dig diggante Adji saar ak Ousmane Sonko ndax mbooloo ma fa ñëpp dañ ñëw ko di ko xool ma ne leen du ngeen tàccu tàccu leen. Eh, vraiment war a xam ne mbooloo ma fa toog loolu indiwu leen fa. Hmm. kenn bëggu ci Adji Sarr Adji maa ngi wax ci problème mu certains kilifa yi. mu hmm. toogee Sénégal naan ndaw ñi dañoo xamadi ndaw ñi dañoo nangam parce que xam nga lan moo tax ndaw ñi ay taan ñuy def loo xam ne dañ leen di classé dañoo xamadi. ci problème Ahmed Khalifa Niass nag moo tax may wax. parce que sëñ Moustapha doom lay waxal muy Ousmane Sonko. Mm-hmm. am na droit wax ko lu ko neex parce que dinañ jubóo. Mm-hmm. mais Ahmed xalifa nga joxe exemple bu baax. Mm-hmm. parce que tante ba ñu fa toogoon démb boo xoolee war ngaa xam ne waa tante bii kontaanuñ. sooy jàngale nga bàyyi ba ñibbi sa kër nga toog def conférence de presse ne diw kat bu bëggee diw nañ ko ko may. waaye problème boo xam ne ay bakkan dañ ci rot. ñu cité ci bokk kilifa diine ñu ñu cité fi ay kilifa diine cité ci ay si ci fi ay président ay ay homme de média ñoo xam ne ñoo jiite ay média boo toogaatee ci ci guddik Seydina Mohamed di ko suli day mel ne dafa am ñooy ñaawal maa ngi jégg lu baax ci kàddu gi nag te wax ne na mag ñi wanewaat seen toogaay pour xale yi mën a topp seen ginnaaw booy jàngale ngay bàyyi booy dem nga jàngale sa kër mais guddik Seydina Mohamed Adji Sarr ko seen yoon nekku ci maa ngi jégg lu baax ci kàddu yi ndax man ko bala maa ñëw ci sëñ Bada. waaw <laughs> propos yi amee tenir yëpp est-ce que mën ñëwaatal benn par benn Euh, bu ko defee soo paree ba da joxe xalaatam ak analyse am mais daal propos yi mu tënni parce que démb dégg nañ fa sax ay ay jaay fonde ay wang. waaw loolu yëpp dégg nañ ko nekk lu yéeme waaw bon waaw bi mu waxee bi mu waxee loolu sax bon ñëpp réer nañ mais tamit moom sax euh, dañuy saluer audace am dala koy dala koy leeral parce que bu yemoon sax jaay fonde waaye waxuma jaay fonde bi ni jaay ci mbedd mi mm-hmm. waaw laaj na sax ndax mu ngi ndax mu ngi am ba tey maanaam ndax taatu rëy mu ngi am ba tey quoi maanaam xam <laughs> bon c'est des choses yoo xam ah, ne laaj ndax mu ngi am ba tey ndax mu ngi am ba tey ndax xanaa génnul ci mbedd mi mooy jigéen joo xam ne nangam ak nangam mu doon yoo xam ne man bon su fekkee dañuy alléger suñu suñu commentaire dañuy wax ne carrément euh, star yi dañ ko daan def en Amérique ah dafa laaj ndax taatu rëy mu ngi am ba tey mu ngi am ba tey <laughs> xam c'est star yi dañ ko daan def mais gis nga gis nga man c'est-à-dire je me désole. mais loolu na de nga toog ci bésu gàmm di laaj. ah mais mais nga am ba tey. mais si gis ne carrément am na ay mag comme moom yoo xam ne nag ñu siggi c'est-à-dire gis nga àdduna bu la yàlla teralee amit Khalifa Niass man li ma dégg ci moom bu dee dëgg la amul amul lu nit warta am loo xam ne waroo sant yàlla te waroo faale kenn. dëgg la cest à àdduna jaratu ko c'est-à-dire star daan nañ ko def pour nekkaat au devant de la scène parce que man xaw ma loolu lu mu fay wut. Mm-hmm. kàddu yooyu mais non seulement tamit waru ko adressé parce que il faut ñu comprendre gis nga euh, le président Diomaye Faye c' est le président de de de Serigne Mountakha. Mm-hmm. nga dem Tivaouane seen xalifa mooy président ba. nga dem mm-hmm. yeneen ak yeneen il faut nga respecter ne dañ lay jàngal sax école ne la pour insulter. un président il faut nga wax turam képp. mais il ne faut pas dire. le président de la république c'est insulter tous les sénégalais il faut gars yi di bàyyi xel loolu tamit parce que am na loo xam ne tey jii nit mënul sëñ Mountakha tey bu demoon ba ba bitim réew ñu ne ko foo dëkk danaan sénégalais la kuy sa président mu ne Ousmane Sonko kon ko euh, kuy kuy kuy sa président mu ne Bassirou Diomaye Faye kon li ngay teg ci deram nga ne critique bu propre mais pas ngay wax pour wax man gisuma maanaam euh, waxu Adji Sarr bi fan la ko mën a jëmee te Ousmane Sonko il faut ñu comprendre benn affaire ah, ko de ndax déggu dégguma verdict dégguma dara mais lu li wétawul moom mooy am dëgg ko indi fii mu toog ndax ku état bu Sénégal xeexal nga dem ba nekk premier ministre jiital nit mu nekk président loolu jaratul nit ñi di la àtte dan laa tooñ loolu mooy dëgg kon la mu wax ci tànt ba bu ko nit ñi ñi ñimee nan ko wax na ko carrément njuum te am na day nit day juum nit day juum ak ku nu munti tudd nag munoo fexe ba fanaan arasan ci mat laa ngay fanaan yaa ngi njuumte yàlla daf ci joxe ba jox ci exemple ci Seydina Mohamed mooy bi muy nelaw ba biddanti moo waral salaatu xayru mina nawm bàyyi leen julli julli moo gën nelaw Seydina Mohamed ba mu ñëwee dafa gëm ne mooy gën gi mbindeef daf ne Bilaal lii bu ko bàyyeeti kon lii mooy dëgg c'est-à-dire ñuy wax jël nit ki tamit euh, ak am na fa ko yàlla eggale mais nan gëm na nit la amee Xalifa Ñas daa juum. ñëw hmm. ñu daa bon daa juum. ah te na ni daa juum. li mu léegi est euh, ce que est ce que est ce que xam nga xam na ni daa xam na ni daa juum ak jàpp na ni daa juum bokkul parce que jàpp ni.